ma faal maam Sabra Faal rek la maam Sabra Faal rek moo ñu ma faal ba ba tey day mën a ma seen ngi kii mooy tëggal ma seen yàgg ma le 4 avril Gaston Mbengue la nga andi ak Mbaye Sy Ndiaye ngi lay ziar. Eh, maa ngi lay delloo ziar. ba am nga jàmm Mor. am naa jàmm di sant maam Cheikh Ibrahima Fall bu bëri. ak sa Mor li ngay tëgg neex na. la ngay tëgg neex na. waaw dëgg la bëggal Fall si rek. ndeysaan di leen dundal ndax nit ki moom ci li ngay dund saxoo du ci neex man loolu laa am ko bëggale kese. barke maam Cheikh Ibrahima Fall. le 4 avril le maa ngi waajalu rëy. ndax ku ne xam at bu nekk la ca war xew. waaw bees. bees tax ak cosaan. ak ama seen. ak ama seen sama doomu ndey sama rak waaw ma bëgg koloo nag te yàlla bi rek waaw. yàq xam nga Mbaye si Ndiaye. bu baax. mooy tëgal kan. waaw mooy tëgal la dëggee. ah géwél yëpp benn lañ. boo dëggee géwél dama lay sama xol ngir jëm maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw te ko ñaanal yàlla may ko jàmm may ko fan wu ak wër. mais kuy man kan mooy kan mooy jël mooy raw bés boobu yàq moom ndax kan bés boobu yàq moom kan mooy gën a neex dëgg ndox du bay yoonam ndox du bay yoonam déedéet da lëndëm lëndëm bugg fër bay barke sax baal waaw bakkal ma ma seen bakkal ma ma seen bakkal ma ma seen Babacar ak làmb du mën a ñàkk fii ma taxaw nag ba tey maa ngi biir Gambia pour ngeen xam ko mais maa ngi nuyuwaat rek ni ma ko daan waxee mbokku Gambia yëpp tey nag daa am koo xam ne nii moom laay waxtaanal parce que daa am rendiw bu mag la 4 avril yàgg maar yaa ma ko gën a xam Eumeu Sène Lac de Guiers 2 arène nationale lii ay galañ la gis nga lii maar defe naa moom la gars yi defar da ci bàkk sabari yi muy neex mais liit bongo la bokk na ci bagage yi góor maa ngi lay bëggee naaj grand nga jàmm. am naa jàmm tur bi waaw ah, la. yow daa mel ni mokkal nga lii de wala. non lii si njàng laa toll sama waa yee may jàngal. ah bi moom. maître bàyyi nii. ma laalal ci lii tuuti muy dégg. ma ko dina ma arrangé. xam nga dam bis yooyu boo si jëmee faw moom li muy àndal. man ko jëlal fabal dem dëkk bongo yëngal ngewel ey eh, ana ñu ko bëgg ñoo ana ñu ko bëgg waay Mor Ngom neexu leenam Mor Ngom de neexu leenam Mor Ngom de neexu leenam yaay sama saña yaa dëkk Gàmbi te lu métti yaa soccoo courant nga lax nde ko asib doo dee yaay duggul moteur saare yaa tër kii mooma yéem du fokk du bënn kenn du ko ñambas garanti la eh xaman ku ma wéyal moo ngoom de lay woo nan ko daa baax daa gore daa yaatu daa yaatale nga na ay ca loolu dana ma neex ngay kontaan may reetaan sax dama <laughs> ci biir làmb ji dégg ngeen li mu wax dégg ngeen borom bongo bi li mu wax moor nuyuwaat naa la maa ngi lay fay Babacar maa lay fay bu baax baax di la gërëm di la ñaanal sa taxawaay di la ñaanal ci sa liggéey yaag say ñooñ euh, di ñaana suñu borom defal la tawféex euh, làq la fu yàq yeggul barke la barke sa njaboot te di ñaan yàlla defal ñu sutura àdduna ak alaxira te musal ñu ci gàcc àdduna ak alaxira ci barke Seydina Muhammad biir Gàmbi laa la fekk waaw biir Gàmbi nga ma fekk fii ci Fass njaga Coy waaw mu ci la mu Fallou Ndiaye waaw ci laa ñëw dañu waxtaan nga tëgg sabar yi ma laaj la nga tëgg li nga tëgg noonu bi ma bi bi ma la dékkee micro bi loolu nga tëgg loolu nu mu tudd. non bi ma fekk may tëgg boobu dama ànd ak àll ndax damaa doon Baay Faal te jamono da ma fekk may tagg maam Cheikh Ibrahima Fall juste nga ma doon tëgg moo taxoon ma de la waaw ci laa doon tontu waaw. loolu tax nga waaw dama fekk may tëgg yaa ñi moom. faal yaa ñi moom faal ku ne xam nga ne bay faal ñoom ñoo ko yàlloo waaw. léegi ma am ma ma laaj la ci diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers Eumeu kañ nga ko commencé tëggal. Eumeu Sène maa ngi ko commencé tëggal ci combat bi mu waroon a bëre mook Tafa Gueye te Alaaji Njaay tëggoor ko. Doudou Ndiaye Coumba. Alaaji Ndiaye Rose. waaw mu Doudou laa ko commencé tëgal combat boobu daa mujjoon fomm ci laa ko commencé tëgal. ba tey nii toujours saa yu bëri yaa koy tëg. waaw ba tey jii nii nii. seen xamante fu mu jógee. suñu xamante mu ngi jógee ci lamb bu amoon ginnaaw raay. Pikine ci la ñëwoon bàkku si ma koy tëgal daal ba yaram yi tàng suñu mbubb mi ci dem nag ne suma mënoon jot rastamaanu baabu ngom yi ndax jamono yooyu maa ngi ci baabu ngom mu fekk am benn booy bu ko bu fa nekk ci biir écurie bi na ko man de xawma ko waaye xam naa euh, benn gaan bu yaana moom xaritam di Insa Mbassa suñ ko laajtee dina xam fi mu nekk léegi bi ñu gisee Insa Mbassa Insa mbasa na leen xaw ma actuellement këram waaye am naa ay xam naa fi rakkam yi nekk. mu ne ko soo ma mënoo dimbali ci moom dina ma neex lool ci la dem ci sama rakk yi sama rakk yi jox leen sama numéro ci la ma woo mu ma fekk jiloor Saloum boo di Foundiougne may tëgg làmb ci la ma woo nee ma daal moom combat nag nga tëggal ma sa kenn doyuma ci kuddut yow ma ne ko ah munuma ndax di nga mën a ñëw suba suba ma ne ko non damay tëgg làmb fii nii. mais dimanche laa fi jeex incha allah lundi bi soobee yàlla ci kattan suñu borom di nga ma gis ci lañ dem waxtaan ñëw ma defar ko benn euh, intervention tegal ko répété dem yóbbu mu ma lii daa bëri te man tegub góor laa bëgg maanaam tëgub góor boo xam ne da ngay def trois pas quatre pas ngay egsi ci ci laa génnee tëgg boobu ma tëgg tëggal ko ko. mooy boobu naan cagrat ta tagurat ta tagurat ta tagurat ta durat ba ta tasurat ba ta gis cagit kac ki ce ki ce ki ce kurat ki ki ket ket ket waaw boobu la jamono yooyu laa ko génneel waaw ci la moom wala lii laa bëgg yàlla def nag aussi boobu ba léegi wax dëgg yàlla ñaaw te fi amul sama diggante ak moom parce que ngor lay demee may demee ngor waaw muy sama rak bëgg ma loolu nag wax dëgg yàlla balewuma ci leen aussi samay mbir doy ko ñu ànd ci ngor ba joon yàlla tey jii may ak yow nii wax dëgg yàlla ci ngor la ñuy dund ma wax lu ma safaan du lu ma def parce que man alal duma boole doomu aadama Babacar man jàmm laa bëgg ci nit ki ndax lu fi waay mën a am lu mu bëri danga koy dem bàyyi ko fii rek waaw mais jëf ju ak yëg bi te ama jàmm la parce que boo ko gisee ba ñu ngay njëkkare ngay gis waaw ba ñu ngay njëkk a gis ci moom man laa la même chose man moom loo may woon gisuma say bëñ munuma def ak yow man jàmm laa soxla ci doomu ci looloo nekk ci moom kon leneen lu loolu rek doyu man jàmm rek laa daal ànd bi mbégte nga ci am ba ngeen àndee ba wax dëgg yàlla parce que nit ki di nga am dara ngir jëm jëm nit suñu borom jaare ko ci moom santee ko ko parce que bu la lekkee alom na ko gërëmee cooy waaw na ko gërëmee cooy am na ñoo xam ne jàpp nañ ma ngir moom am na fu ma dem ngir ñoom am na lu ma am ngir ñoom am na lu may doomu aadama defal ngir jëmm jooju kon wax dëgg yàlla mbégte laa am ci moom. mbégte wax dëgg yàlla. Euh, tey mu mel ni euh, la 4 avril la war a bëre ki nga xam ne moom mooy Lac de de troisième combat te ñaar yëpp yaa leen tëgg ñetteel bi incha allahu rabbi yaa koy tëgg nga war a jàkkaarloo koo xam ne ba géwél la ne yow te yéen a bokk ngéwél gi muy mbay si Ndiaye war a tëggal Lac de Guiers Gaston tëgg bis boobu ci arène nationale. waaw euh, Babacar Mbaye dama koy ñaanal suñu borom doolal ko kattanal ko may ko wër barkal ko ci li muy liggéey ndax sama mbokk la ñu ñëpp benn lañ ko wax benn bopp la kenn mënuñoo xar ñaar comme ni mbëri di demee rek mbëri li ñuy tàng-tàng yëpp ci biir géew suñ fa génnee rek doon benn ñuy laa même chose ma di ko ñaanal suñu borom bàyyi ko fi loolu mu yàgg fi te wër waaye dama xam sama wër bu baax a baax waaye xam naa ko ndax nit ki bu demee boppam gëm la mu doon xam boppam amal ci moom ko parce que looy def rek te gëmoo sa bopp rek doo cee dem waaw. kon daal bés boobu su ma la déggee kon yàq sa mbër incha allahu rabbi moom ci côté bëre bi moom yow ci côté tëgg bi boo sàgganee kon da ngaa xalaat ne yéenay nekk numéro un bés boobu. waaw parce que ndox du bay yoonam. waxoon ko de. waaw te it ëma du bëggaat benn défaite ak combat bi daf ko mel ni combat royal. ci moom waaw parce que fi mu jógee la. waaw. mas nga koy euh, comme nga koy tëggal nii sentir na tey kii nekkul day sentir défaite am wala nga sentir victoire am arrivé na la ci biir combat am. waaw day am. ci ban la ci boo sentir victoire am. victoire non naa victoire am beeg moom bee bu njëkk ba. waaw xamoon naa ne dina am défaite ndax géwél day yëg bii nag amoon naa yaakaar ne day daan. waaw xëy na li ñu naan xalam demoon na bay neex buum ba dagg waaw yaakaar fu nekk lay tasee waaye xalaatuma woon ne dina daanu wax dëgg yàlla waaw ndax dama dama gisoon ci moom pouvoir bu rëy gisoon ci moom yëg-yëg bu rëy ak confiance bu rëy waaw mbir nag day dem bi ci jigéen ci bi yaakaar tas waaye lu ma bettoon la jëlu boobu waaw. bés bi ñëw incha allah rabi yàlla nañ ko fekk tal ko ñaata dund nga fas yéene indi arène nationale. comme la muy demee rek comme leneen loo indi te gars yi euh, nanguñ ko it du sotti xanaa secours mais quinze sabari ba ci veille bu soobee yàlla dinaa ko indi te dinaa yëngalaat stade bu soobee yàlla bu bokkul ak façon ni mu ko doon yëngalee waaw parce que at bu nekk ak la ca war a xew. waaw. kon deux mille vingt et un bi am na loo ci war a indi. deux mille vingt et un dinaa yokkaat beneen sabar sax ci veille yi muy vingt incha allah nga waaw bu baax a baax. ba mu yëg ne am na ndaanaan wax ni mu gëmee boppam laa gëme saa bopp waaw wax dëgg yàlla ndax sama ndënd yi mooy sama jamaa mooy sama or ndax lépp lu la may lu teraanga lu nekk nga fonk ko ku la dugal ci bërëb fu nekk nga fonk ko ku la may ay xarit loolu da koy fonk muy sama ndënd yi dama gëm li ma doon. je suis fier d'être Clio waaw. promoteur bi ko tëgg loo koy wax muy Gaston Mbengue. Gaston di ñaanal yàlla guddal ay fanam te wër ay cëram ndax kuy boole ay nit doomu aadama te mbooloo ci ngay gisee sa bopp lu nekk dafa am ci mbooloo ay xarita ngi ci biir mbooloo sëya ngi ci biir mbooloo tukkee ngi ci biir mbooloo demu makaa ngi ci biir mbooloo kon nit kooku di fexe loolu doo mënul ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi mu yàgg loolu te wër te ku am fulla la am fula ku am fayda ku bëgg la muy def ba pare di doomu dimbale doomu aadama ki nag buy dimbale doomu aadama la mënoo rek di ko ñaanal yàlla di war a cëram saa su nekk te may ko jàmm waaw. kon daal loolu mooy ñaan gi nga ñaanal gas. waaw na ko yàlla làq fi yàq yeggul suturaal ko ba bés ba jot mu amee ko ni mu ko bëggee ci kattanu suñu borom waaw am na solo. ba mais fi may jeexaleeg yow sa digganteeg tëggkat yi nga xam ne yéen a seq làmb ji ak waykatu séeréer si relation bi nu mu demee. ratax ban. ñoom Maodo Faye ñoom bu jilaas. Momo maa ko doon kii Maodo maa ko doon jax jaase ne ko dama utali ma galan Maodo. ut yar dóor ko ne ko dama utali ma galan di ko jàpp ci loxo. magam bu Faye laa tuddee sama taw Babacar xam nga li ma la bu baax Momo papam ma def ci moom ñaar fukki at Babacar. booba moom moo juddoo góor fekk nag garab ci kaw lay fekka waaye baayam la sës rek nag tey jii bugguma dajeek moom sax fenn foo xam ne ay galan ndax damay am complexe ndax tey xëy na may bu ma yàlla may la ni waaye foro naa fekk ma bàyyi xale yi ñuy dem waaye moom moo dama koy ñaanal ndax bari ko la ci mbartal puus mu dem puusul mu dem ndax boo donee sa baay dañu naan doon sa baay doon sa baay ko gay moom daa doon baayam te moment yi baayam demee ba faible le moment jël dalam ya sol ko jóg di dimbale Babacar Ngom di baayam mënuñu di ñaanal ko aussi yàlla bàyyi ko fi dama kontaan ci moom parce que daa gëm ba pare nag doon baayam dondul baayam da daa doon baayam ndax baayam ngi jun da koo doon yàlla na ko yàggal doon ci barke Seydina Muhammad waaw. Fogole séeréer. Fogole séeréer. en simna noon nun fof simna artiste ke euh, soo koy heɗana euh, wacur kemi roga wasuden men heɗana euh, o sama jabar mam diara yayu babacar ak ayda yayu sule yayu saliw yaayu Modou Guèye di koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi loolu mu yàgg fi te war ndax daa doon jigéen ju mun góor jigéen ju jigéen ju ma suturaal jigéen ju ma yiir jigéen ju ma xam ni ma ki ma doon nangu maa muñal may dem ci ay àll di yàgg dafa def lu nekk mu toogal ma ci kër ga uufal ma njaboot buy neex mu toog buy naqari mu toog yoo leen ci anam gu rafet ak ful ak fayda mënuma ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi loolu moom am jaara sama di jikke sama jabar